procureur bi nag man bu fekkoon day defar orthographe orthographe bu fekkoon ne euh, procureur dina ko def dinaa ko dem seeti mu defal ma orthographe guerrier la ñi kenn waru leen a bàyyi ñuy traîner ci benn dëkk parce que ay noonu réew mi lañ ay secte lañ xawma lan lañ taxaw dajaloo ah saaga réew mi yàq réew mi taal comprendre la du ñu du digle lu baax duñu wax lu baax parti bu mel noonu parti boobu existeetul Pastef dañ koy yeex a dindi ci landerneau politique sénégalaise parce que nekkul parti genre sect la. non man j'ai un ami boo xam ni il est en France. oui dama wax ni ma man dama yor sama ay doom. moom bi mu nekkee Sénégal bokkul woon Pastef de mais nee na bi mu demee France dafa néew bokk Pastef xam nga lu tax mu dem bokk Pastef parce yow boo nee fa bokk commencé jël sa statut di def Sonko di def affaire yooyu doomam yi am na ku ko koo xam day ñëw di ko téel ay doomam que mu ngi mu ngi xeex. est-ce que comprendre nga ñoom bi ñuy doxale kooku nee ma sama doom yi xoola bu wéetee day saaga Sonko te ñu koy téyel ay doomam xam na na moo tax ñu koy téyel ay doomam bu xëyee day estati Macky Sall dictateur Macky Sall lii daal di jël Sonko révolutionnaire def benn chaîne nii def loolu rek lay def mais muy bénéfice di leen utiliser gis nit boo bëggee ñu def la mbaam mbaam lañ lay def lii ñu gën nii mënul dox. mais maam nak la ñu mën a comprendre itam suñu réew fu ñu toll ci wàllum démocratie bu fekkee ni dëgg la recul démocratique amu fi ñu ngi organiser ay élection yi nga xamante ñi dañuy bokk ñi duñu bokk. àddina bi même ci match de football Aliou Cissé mi buy jël équipe nationale day am joueurs yoo bokk ñoom duñu bokk bokk du bokkuñu ci joueurs yu baax yi duñu bokk ñoom bokkuñu ci joueurs yu baax yi da ngeen a dem ak ñoom élection da leen ragale xel wala lan. nii dañoo mën a gagné seen nekk mais bu fekkoon nañuy gagné ba ñu demee élection. 2019 kon pourquoi bëgg ñu bokk su fekkee ne la dama ni parti criminel ay taalkatu ay station ay taalkatu kër jàmbur ay reykati ay nit kenn du leen ba kenn leen jàbbaay. non c'est pas dit que ni li nga wax ni yëpp ñoom ñoo ko def. seen patron seen njiit moo ko woote. moo gë woote gat sa gat du moo woote gat sa gat sa. waaw ah, gatam a ngi lakk mu ngi kaso bi na toog foofu. moo ko wootee. am na ñuy démarché bëgg. ñun yéenewuñu kenn kaso dama koy wax bëgg def ay médiation kaso mais Ousmane Sonko. nekk ci kaso bi sénégalais yi am jàmm. moo gën Ousmane jo Ousmane Sonko am jàmm te sénégalais yi amuñu jàmm Ousmane Sonko bu amee jàmm sénégalais yi duñu am jàmm su amul jàmm sénégalais yi am jàmm bañ ko tëjee ba léegi réew maa ngi neex. nit ñaa ngi ci plage bi ñu xanaa ci yéen la neexee non dama ni mu ngi neex ci ñëpp yow mii da nga doon am problème pour génn doxi sa soxla parce que ñu ngi baare mbedd yi ñu ngi lakk ay pneu ñu ngi taal ay station ku nekk bu génnee manifestation bu ñu sonal gars yi Sénégal ñun jàmm la ñu tal xuloo wu ñu xeexuñu ok man woyoon naa fi benn way ni xuloowuñu maam góor xeexuñu du ñu téesante suñu carte lañ yor saa yu woote jotee ñu dem ca mbañ gàcce ma wooteel ki ñu àndal bu fekkee ni ñoom dañoo jàpp ne mën nañoo gagné bu élection jotee nañ joxe consigne de vote ni bu ñu kenn votel xala balaa mi di Amadou Ba gañe leen. mais gis nañ depuis lors yi ci jot am yëpp am na sax ñuy rumbalaat ne am na ay médiation yu nga xamante ni ñu ngi koy dox yenn kilifa yi ñu ngi koy dox pour que euh, kii di ay mbiru Ousmane Sonko. ñu mun ko ñu mun ko xoolaat dama ni. dama ni. joxoñ tur mais nee nañ am na ñu nga xamante ñu ngi koy dox bu ko defee ñu mën a xoolaat les choses avec son son gisoon nañ gisoon nañ tamit au temps fi jabaram yi defoon ngeen ñaan ki nga xamante ni moo di la <laughs> première dame njëkk ak li ni ji li bu fekkee ni finalement fay na Ousmane Sonko génn bokkaat ci langum politique man keroog bi ma gisee jabaram yi si télé bi dama tiit si laa xam ni laa xam lu tax Ousmane Sonko dem ci Adji Sarr mel ni ay tortu ninja. non mais non non dañu waxante ay soxna ay soxna ay soxna jàmbur lañu taxaw moom moom rek. moom neex na leen benn jabar maa ngi gis ma je le dem nga fa. xam nga ko Ousmane Sonko génn ni xam naa ko naam dem naa fa li ma yëg ci sama yaram ba dem fa maa ko xam. la muy yëg lan la ñun ay góor lañ ko. mais ay soxna jàmbur lañu parce que la muy non dama ni parce que la muy yëg foofu. la muy yëg bu demee foofu ci Adji Sarr foofu noonu la mu fa doon yëg neex-neex yi moo tax mu bàyyi leen fa ñoom ñu saful xorom safuñu yàpp safuñu jën non saf nañ xorom ci moom moom non dama ne buñ safoon xorom du dem suite beauté mais ça dire oui là ne se situe pas le débat non ay soxnaam lañu te vraiment on les respecte oui mais looloo taal réew mi li gis nga daal wax da ñëw teg ci sa baaraam. non mais lii c'est personnel. dama ni mënuñ ci teg ci baaraam dama ni c'est pas personnel. parce que moom bu personnel woon bañ ko jiiñee viol day dem wuyu ji mais moom moo génne woote mortal combat bi mu njëkkee kii dafa bind ci page Facebook am ni xamul Adji Sarr. mu dem ba ci biir xam ni gars yi jàpp nañ ko xam nañ ni xam na ko mu ne xam naa ko naam li may xumalan nañ waxante dëgg jabaram yi Ousmane Sonko bi muy wootee gatsa gatsa bu fekkoon bu guddi jotee ñu woo ko ni ah bébé li nga wax tey garaaw na de lii waratoo ko wax sa jabar moo war a man sama jabar daf may conseil sa jabar moo war a njëkk nekk sa conseil mais maam une femme confiance bi ngeen am ci ni ah, Amadou Ba bi ngeen am ci ni Amadou Ba mooy gagné tey jii benn Ousmane Sonko bu génn wala benn Pastef bu teg plan B moo xam Diomaye lay doon wala ndax Guy Marius gis naa temps yi sax ñeneen di porter li nga xamante ni moo di candidature Guy Marius lu ni mel est du perturber seen plan est-ce que su confiance bi nga am ni ci Amadou Ba mooy gagné di ko xam ñu ngi fi woon bi mu ko sa ko sa ku dee sa yaay juraat ay ñu ngi ko doon gis bi ñuy jël benn brique di ko dóor benn policier fii parcelle jabaram yi ñu ngi ko doon gis nañ waxante dëgg waxuñu ko dara bàyyi ba ñu téye ko ñu génn naan yow jur nga doom waa léegi ñi seen doom yi dee nag ak ñi seen bët yi patt ak ñi seen loxo yi dagg gendarme boobu perte ci loxoom nag amul yaay amul papa soin logique ñii bu ñu tegee plan B c'est à prévoir bu ñu tegee plan B donc dissoudre seen parti mun nañ teg plan B teg seen coalition ñii ku ñu dem ci jongante dama ñii bu ñu demoon est-ce que yéen a ngi sóoraale ku mel ni Guy Marius Sagna tey jii tey bu ñu demoon jël George boole koog Donald Trump boole kaag Mitterrand indi Ablaye Wade boole leen ñoom ñëpp def leen benn candidat xoola benn Sénégal du leen wooteel Pastef la nit ñi bàyyi mbalit lañu mbalit. non ñoom nee nañ Pastef ci xol la. xam mbalit te gis nga fan yii yëpp tamit xale yi sax phénomène bi ñu xewal ci stade yi. di scandé Ousmane Sonko libéré Sonko. est-ce que kon kooku dee na jaar na ci xolu nit ñi. dama bëgg nga déglu moom bu baax. maa ngi lay déglu bu baax Ousmane Sonko fa mu nekk. benn Sénégalais boo sañoon doo fa nekk. ñun yéene ko kaso dama koy wax man de Ousmane Sonko yéene moo ko kaso dama koy wax fii ci plateau bi nga koy dégg mais li muy def ku ko def waroo génn kaso. yow li xew keroog ci match Sénégal bi. dama ne match Sénégal lan moo fa xew. lu dee ni match Sénégal ak Algérie. waaye ñaari nit dañuy toog dañuy dañuy sóob. ñaari nit dañuy sóob kenn da leen a faale kenn dafa woy fii Sonko. nga ne ni ñu koy eh, yi benn partie ñii bu ñu fontoo nit ñi eh lii dañu tekki dara. mais maam waaw ah, yow. yow ñun ay nante lañ si dëkk bi lañ. waaw mais maam keroog yow dafa mel ni man a yow bokkuñu ko luñ seetaan de. yow ay ñaari booy nga may wax. mais eh, man ay riir laa dégg. man maa nga woon ca stade ba kenn yuuxu fa kenn woyu fa Sonko benn genre ñaari nit ñetti ñu booy booy xoolal booy xoolal ñu xoolal booy nañu. yow rek la ñuy def fii Sénégal ay ruubekat ruube fépp la am ci match nawetaan yi ci match de football yi ci ngénte yi ci ceet yi mais roube boobu est-ce que est-ce que est-ce que oui roube boobu ci gis-gisu ñenn ñi xale yi méthode boobu la am tey ji pour génne leen naqadi parce que euh, bu ñu bëggee manifester ñu ne leen déedéet euh, bu ñu bëggee sax bu ñu bëggee manifester leen métti ñu ne leen ak ñu mel kon ce cas là kon dans ce cas là est que euh, du loolu rek la ñu am tey ji comme moyen c'est-à-dire stade di yuuxu oui maa ngi lay déglu fii kenn marchul boo yaa ngi ci plage bi di sangu géej dóor ay moyen de bain ñii dóor seen kenn marche fi bu ñu sonal nii mais yow barki dem lañu fi lañ fi lañ fi rejeté manifestation F24 foo nekk. waaw yow mais mais yow ñoo ñoo xam ne ils sont impopulaires. nga ni ma booy manifester bëgg nañ manifester mais kenn autorisé wax kenn du leen ko may. man maa koy wax état Sénégal bu fi may kenn benn mars ay nit yoo xam ne tekkiwuñu dara kenn xamul amuñu réew mi njëriñ. te ñu nekk ci réewum démocratie Sénégal buy liggéey. te ñu nekk ci réewum démocratie man fa ma dëkk boo fa demee dañ naan maam moo fi ubbi lii moo fi ubbi lii nit ñaa ngi liggéey mais waa F24 wax ma kenn ku ci ubbi benn société bu benn Sénégalais di liggéey amuñu liggéey am jot politique mooy seen métier xëy suba teel suba teel ba ngoon nit ñi war a liggéey Sénégal set war a ubbi yow nga war a traversé xoo oto ñëw liggéey si ñii war a dem ci hôpitaux yi ñii ñu xëy suba teel naan Macky Sall di kenn du leen ko may je suis très fier ci ministre de l'intérieur bu leen kenn may ak le le le préfet ah. année démocratie bi dans ce cas-là ci réew mi ak fii yooyu. ay affaire ay ah, yaa ngi dëggal ñoom dañuy wax que ni réew mi amul démocratie dama ni oui démocratie bu amul woon Sénégal Ousmane Sonko du toog trois ans naan Macky Sall on va le traîner dans la rue ñu bàyyi ko muy dox ay soxlaam dëgg ñii dañuy ëppal gis nga démocratie ëpp moo yàq réew yëpp nañ waxante dëgg ñii dañu yàpp Sénégalais yi nañ dem wuti métier wuti liggéey mais xëy suba tel ma ngoon naan da ngay marche nit ñi ñu leen am nañ ci droit dama ni suñu charte kenn terewul loolu mais mënoo cee dëkk F24 léegi lan la ñuy marche léegi ñoom bu ñu marche lu ñu wax. non mais ñoom bëggoon nañu marche. par rapport ak waaw léegi lan la ñuy wax lan yoo xamul nga seen contenu par rapport oui par rapport ak détenu politique yi. nga xamante ni jàpp nañu ci kaso yi bëggoon nañu ci wax liberté pour ñenn ñi ku dem taal kër jàmbur wala nga yàq business jàmbur wala nga dem lakk kër jàmbur. ginnaaw ba ñu xeexee li nga hmm? xamante ni moo di troisième mandat ba noppi. dama ni ñi si kaso bokk na ci seen bëgg-bëgg. nañ fa yàgg lool dañu wér nag bu ñu feebar bu leen dara jot mais nañ fa yàgg parce que dañu dem ku dem taal kër jàmbur doo détenu politique ku lakk kër jàmbur lakk oto jàmbur doo détenu politique dañoo xam ne dëgg ay bandi lañ ay woyu ñoo ci rax dem di daje ay station jàmbur di jël ay business jàmbur di daje ay bitigu portable jàmbur yaa ngi ko yëg Sénégal pourquoi ay nit bëgg a toog si ay plateau di défendre ay l'indéfendable ay nit yoo xam ne tey dañuy inciter la jeunesse ñu dem di daje ay magasin nga gis benn booy boo xam ne dafa ñafe ba am bitigu portable am ubbi ko ngeen ñëw daje jël ay portable am jël ay téléphone am yóbbu ko Auchan yi benn tubaab liggéeyu ci Guy Marius Sagna doon wax France dégg tey mu nga France nekk ci réewu France yi di fotow mu nga France di nax booy fii naan leen France dégage te maa ko gis mu sol xam nga ay lakas yu benn lakas bu rouge la am sol lakas bu rouge am boobu ak jiinam boobu nekk biir Paris te moo doon wax France dégage. loolu kañ la man gis. démb gis naa ko boo ko wëree ci internet bi da nga koy gis mu ngi France ba pare naan France dégage ñi dañ yeb Sénégalais yi. oui mais tu es d'accord yow bi nga amee sa procès. oui kii gën a sonn ci say affaire moom mooy Juan Branco. oui mais tu es d'accord ak man que ni d'accord ak man que ah, ni. yow yow yow de de ah, dem ba yegg ci ay stade xale di ci xale di xale di fa yuuxu ay ay ay tur ak ku mu ti doon. dama ni loolu nañ ci d'accord ak man loolu ñooñu ay roubeur lañ bàyyi ma ñuy Sonko dama Sonko mbalit la. bu génn. ëllëg tey ji bu ngeen demee ba nekk yéen ci opposition bi ngeen bëgg manifester ñu tere ko xam nga du leen neex. dama bëgg nga déglu ma la Macky nekkoon na opposition fii am na ci ci bëri ñoo xam ni nekkoon nañ opposition ñëw au pouvoir mais wax li Ousmane Sonko wax li fi xew ci ànd yi at yi mujj mosul xew ci benn réew taal ay station daje ay business jàmbur lakk kër ay kër jàmbur mais affaire u lañ doon def terrorisme lañ doon def état bi am fulla ak fayda jàpp leen def leen ci kaso bi un mal franc ci kaso la war a nekk kenn du la bàyyi nga libre loolu mooy dëgg te image imaginer dañuy wax rek dëgg fu fekkee ni hmm, amuñu benn fex bu nekk suñu diggante Ousmane Sonko bañ ko téye ba léegi réew mi dafa am jàmm ñëpp ngi sant lépp a ngi dox. ah bu amee bu amee boo ko jàppee noonu am na ñu nga xamante ni ñoom wuñ ko noonu. ga jàpp Ousmane Sonko moom wax dëgg neexee la lu metti la si ñoom euh, te it. Ousmane Sonko jàpp nañ ni dafa war a bokk ci li nga xamante ni moo di jongante présidentielle 2024. nañ wax ñeneen mu toll nii wax ma ñeneen mais Ousmane Sonko moom c'est fini kenn waxatul ay waxam. en tout cas dañ ba xam ne béy wër na mbuus la jabaram yi wër fii naan Marème euh, euh, Faye Sall jigéen nga dangaa jur en tout cas xamoon ngeen en tout cas il y deux minutes maa ngi lire ci ci ki nga xamante ni moo di euh, ku mel ni euh, Ngouda Mboup moom mi ngi persister ci ni Ousmane Sonko ba tey moom mooy seen seen candidat ci au soir du 25. moom gis naa ko fii de 2024. moom temps gis naa ko fi muy wax nii état xuma lan euh, seen seen yeewi askan wi xuma fay benn moon yi dana woon day porter plainte moom plainte bi dafa yàgg. moom plainte <laughs> moom plainte bi dafa yàgg ak Eba Mbaye. plainte bi